jaaraama di leen ziar yéen ñep di leen ndokkeel di leen ñaanal e tey di sakku ñaan jere ngeen jëf bon euh, comme d'habitude euh, nous la ñu man Moustapha Badji euh, jaam bu un euh, esclave positivement pour la première fois ci suis gatt Afrique am ay jaam yoo xam ne wax dëgg symboliquement de façon réaliste di ko taxaw ci fànnaaw yëpp donc di leen jox seeni euh, wàccuwaay yéen mi nekk fii euh, di leen wax ni euh, doxantu waxtaan la rek parce que Moustapha dafa ñàkk jot trop mais du ma bañ a wax ci Sénégal nu muy fonctionner jamono jii may wax ak yéen sama environnement mayu ma sax moy tok fenn 2 heures de temps euh pour di wax euh ci occupation deug la né lolo tax nak de temps en temps bu ñuy dox di dem fenn ben soxla ñi profito euh def yi ay waxtaan yu melni doxantu waxtaan la koy tuddé man tey ñu bëggoon waxtaan ak yeen ci lu jëm ci li di loi amnistie go xam ne jamono ji hémicycle bi assemblée nationale du Sénégal ak euh, député yi nek ci ci biir ñi ngi liggéey ñi ngi waxtaan loi amnistie googu dont euh, présence su ministre de la justice suma juumut euh, di Aïssata Tall Sall suma juumut de euh, déglu intervention l'honorable député Guy Marie Sagna euh, muy wax ci abandon des charges au lieu d'amnistie Nous donnons intervention bu am solo euh, ci lu mu a résumé Guy bon macha allah bokk na député yi de xam Andy musuñu andi Sénégal c'est une présence bureau assemblée askan gis sentir nazi bopom boppam 14e euh, législature bi su tamet ci 14e législature lay ne ah je pense que nañ ko ah. euh, voilà donc Guy moi le député du peuple le vrai député du peuple wute na ak euh, Benin soi-disant euh, député di peuple bo xam jamono yo xam sénégalais yi bu baax ci politique di maître El Hadj Diouf doon yuufu fu ne député di peuple d'ailleurs fiirange gogo ko tax mu bañ gi Marius Sagna Ousmane Sonko voilà gi mom dafa ñemewut gi noonu quoi euh mais xam nga ñu bo bëggé bëggee siw da ngay attaqué ku siw donc euh, c'est-à-dire nga tok pendant des années di lëre sénégalais yi di leen di tuddee sa bopp député du peuple da ngay bàyyi ba ñu tuddee député du peuple Maître El loolu la war a def dangay liggéey nga noppi ba askan gi xool nga nekk di def mu ne la yow yaay député du peuple voilà Ousmane Sonko musul jóg mu tuddee boppam député du peuple Guy Marius Sagna musul jóg tuddee boppam euh, député du peuple ñeneen ak ñeneen ñu mel ni ñoom musuñu jóg tuddee seeni bopp député du peuple déedéet askan ngee leen xool seen taxawaay gu mucc ayib ci assemblée nationale di défendre ce qui est défendable et loyalement et de façon ouverte ñu tuddee leen député du peuple mais nga yeewu rek lekk ba suur dóor sa dehin jiital sa biir gu ngande gi foo dem rek ngay ngay ñoo di maay député du peuple sangam nangam di jouer comédie donc ci gàttal pour wax leen ni pour ñu comprendre lu maître El Diouf bu gisee Ousmane Sonko wala bu Ousmane Sonko la wala soit euh, musique bu bu gu la les c'est parce que lan la euh, dafa doon woote lu wax ruube daal dafa doon ruube fekk sénégalais yi xel yi ci politique jamono Ousmane Sonko dafa indi lu Sénégal il faut que ñu nangul quoi hein, en toute simplicité cest à que Ousmane Sonko dafa yóbbu sénégalais yi fu ñu musut yegg def ci ñoom esprit critique ci wàllu politique def tout ba sénégalais yi nag muy jóg di engagé wu politiquement bu politique jaral ko lu ne te mu ciy wut lëppoom mu sentir ni ndekete politique bu fal la mun a defaroo avenir am loolu Sonko moo ko moo moo ko moo ko def ci ndaw yi dégg ngeen mun ngeen soxor nag bañ a reconnaître loolu wala nekk ay hypocrite

bàyyi parce que c'est âge wala lenn wala niveau d'étude ñoo gën a nekk hypocrite malheureusement voilà donc Sonko a fait un travail goo xam même Mamadou Dia Ante Diop malgré la qualité de travail qu'ils ont mis qu'ils avaient mis en place malgré leur carrure leur posture leur dynamisme en politique ils n'ont pas pu quand même euh, mettre en place euh, une énergie pour amener des euh, jeunes jeunesse qui euh, politique bo, jeunesse bi di sentir politiquement di politiquement de façon patriotique et panafricaine loolu wax deug yalla Sonko moko indi Sénégal ko gis mu la patriotisme bu

ou au lieu de ministre parce que ministre ron la wala ñu eh, ministre ron parce que voilà mbojo bojo politique mineur aïssata tal sal mo oh, xamné wax deug da nga leen di xol ñu hamne ci oh, pouvoir nga xamné assoffé de pouvoir lañ xaliss ak pouvoir rek lañ lañuy wut fam bobu non ñu bëgg jaaral ab loi amnesty amnesty dang koy def ko hamne, ñëpp dañu xamni dafa am utilité publique

Euh, ñenn ñoo xam dañuy def naka sudul noonu nga mere leen ba koñ bi yëpp xam nañ leen mere benn bés nga décider pour woote réunion de famille pour baal leen ma diw baal naa la sauf que ñun makisal ak ñu mu àndal lan la ñu def patriotes yi dañoo créer complot xam nga ñu fi nekk di wax yëpp ay Sonko ay sangam na di wax waxum taatak ay waxu saay saay ak ay sangam na nga warul dem ci def na si dugg na xoolal boy loolu bu heure bi jotee sax ñu waxtaan ak yéen ci loolu mais dama dama gis ni loolu amul sens man mi sax des fois damay am envie di wax ci loolu waxtaan ci loolu mais dama toog benn instant ma ne loolu di ci wax sax amul sens si yaa dëgg parce que sonko nit la comme ñëpp dëgg ngeen war na dem fu ko neex war na dugg fu ko neex normalement waaw normalement man à sa place peut être du ma dem sax si yeneen endroit et tout ça mais sauf que man du ma moom sonko du yéen fu ko neexit mun na dem parce que fu mu dem di salon de beauté salon de massage c'est pas interdit c'est pas interdit Sonko du imam dégg ngeen Sonko du imam du wolew du yonent jullit le, dégg ngeen te Sénégal ñaata jullit ñoy bàkkaar la len wax sen kilifa yi ñaata kilifa ñoy def naka sudul noonu Sénégal est-ce que da ngeen mos a lool ah am ñoo xam ñu ngi def naka sudul noonu si suuf est-ce que yéen da ngeen koy yek affaire yoy ah bu ngeen waxoon yàlla bu doon teggi saket yi yëpp mu wan ku nekk lu muy def ci biir sonko luñ ko doyee du loolo dégg nga fu ko neex def ay dafa am ay soxna ay waxu yu teeraateer yooyu wax yi ñàkk fayda yooyu noonu xam nga loolu yow sa xarit boo leen toogee muy def loolu nga gis xëy na nga gis ni être que moom dafa bëgg am nu mel si diine mun nga ko yedd si loolu quoi waaw mais loolu day fekk yow nga sentir ni kii dafa am lu mu soxla si diine nga yedd ko ci loolu quoi parce que diine du ñëpp a ko soxla tamit il faut ngeen xam loolu du ñëpp a soxla diine du ñëpp a euh, gëm yàlla du ñëpp a gëm ne àjjana am na ak safara du ñëpp a gëm loolu seen dëgg voilà léegi nag bu fekkee da ngeen gis sonko nag muy pratiquer di jaamu yàlla et tout ça di jéem euh, voilà waaw mun ngeen toogee nag non foofu moom war munoon na fa bañ a dem ak yooyu mais dam leen di laaj politiquement est-ce que ñun loolu lañ ko doyee dañuy wax ne dañ koy fal président boo xam ne dafa war a doon wóoliwu wala dañuy wax dañ koy fal pour bu mu dem seeti pour mu réguler affaire yi fi taat Sénégal est que loolu lañ koy doyee est-ce que dañ koy fal pour mu ñëw tëj auberge yi wala hôtel yi di lijjante ñu nekk di laalante ci hôtel yi wala yu mel noonu est-ce que loolu lañ koy doye est-ce que ñun dañ ko fal pour mu ñëw lijjante ñu fi taat dam leen laaj Sénégal est-ce que loolu ngeen doyee Sonko Sonko est-ce que dañ ko dañ koy waaj a fal pour mu doon euh, président boo xam ne premier projet wu mag lu gën a important ci moom mooy lijjante ñu fi taat Sénégal lan nga koy doyee te pour mu ñëw redresser seen économie ah chômage endémique bi bu catastrophe bi bu dindi ko ci réew mi pauvreté bi bu wàññi ko yëkkati suñuy plateau médicaux taxaw suñu agriculture industrialiser réew mi éducation bi mu def ko ba mu doon éducation bu mucc ayib mu développer Sénégal ci xam-xam mu yor te ànd lépp ànd ak transparence ak jub te sonko dafa jub dafa transparent du lekk lu lewul ñëpp xam nañ loolu loolu ñëpp ko si séeni kenn musul gis ku gën mu ne sonko moo amel lii depuis bu mu dugg see politique 2014 ba léegi kenn musu ko gis ñun loolu la ñuy dowee sonko ay aji sara ke ay sangam ni la fa deme sala no bote ndey hadi ay sangam gis nga senegal il faut que ngeen yew sénégalais il faut que ngeen yew gis na sax fan yi ñenn ñi ñoo xam ne tiktokeur yi ñàkk fayda yoo xam ne dañ leen fay peut être xaalis ñu commencé di yëkkati débat yooyu toog fii ñu ne loolu la waxtaan waaye waroo dem si salon yi waaye moom dafa bàyyi ay soxna moom mo fa demoon man pour man yéen mentalement da ngeen dese évoluer sénégalais parce que bo len évolué woon ñu bëré ci yéen mentalement loolu du doon débat ci yéen parce que kilifa yi bëré sen soi-disant kilifa yi ñu bëré ñu ngi laal ay xalé ci ay roku té kenn du ko yegg waaw loolu man loolu dinaa leen ko wax parce que xamna naa lu tax ma wax ko j'étais dans la presse amna fu ñu dajé ay bërëb ah yo xamné kilifa kilifa d'après yéen si seen gis-gis seen culture waro fa tok kilifa yoy ak seeni xaftaan lu ñu wut ci bërëb yooyu ak xale yu leen wër ak xale yu salte yu leen wër te man ma gis ko sama bët lu tax ñoom ñuy accepté xale yooyu di leen di leen wër te ñuy sant mbàkke ñenn si ñoom sant mbàkke ak yeneen sant sangam nangam donc bu ñu naxantee dégg ngeen sonko soxlaw ñu ko ci lu ngeen nekkee yéen lu ngeen di woo sonko du looloo tax a ñi ñi projet lañ am lenen lañ soxla bopp sonko lañ soxla xam-xamoom juboom transparence bi ak ñàkk xeex ki ñuy xeex guerre loolu lañ koy doyee parce que guerre moo téye sénégal parce que bu fekkee lu ñu liggéey benn groupe sàcc ko ah dafa mel de ngeen am tol, loo leen defar tool gi ben groupe de personnes ñu ñëw jël lépp dugal ko ci ay saaku yobbu bu ñu yeewoo ñu ne grenier bi dara nekkatoo pourtant béy nañ chaque année non non bu yàgg lu ñuy béy lan lay njëriñ dañu waxante deug Sonko lu koy doyé moy mu redresser suñu lepp suñu dëkk bi loolu lañ koy doyé deug ngeen légui nak vie privée om moom ak yalla la dégg ngeen vie privée om moom ak yalla la fu ko neex mu dem jigéen mu ngaay mun na ko laal man moom du ma nekk fii di tourner autour dama ne yàgg naa leen ko dama ko fi waxaat te xam naa ne yii yëpp Sonko du ko def sax mais comme yéen Sénégal seen raisonnement foofu la toll man ci loolu laa leen di fekk dama ne Sonko na dem liggéey xëy fayeeku jigéen bu ko neex Sénégal boo xam ne Sonko dafa bëgg Sonko tëddee ko bu ko neexee mu tëddee ko ci lu kenn fekk yow loolu vie privée moom la dañu wax de ñaata nit ñooy ñooy def loolu ay jigéen ñaata nit ñoo nekk di tëddee ay nit ci biiru dëkk bi fekkee ak consentement léegi bu fekkee nag ku tëju ak jigéen ci néeg boo gënee jigéen wax nag ma violé loolu kon loolu dafay yomb sa waay kon góor yàlla yëpp mun nañu tëj à tout moment parce que jigéen bu nga tëju rek si néeg mu gënd mu am ñu dem si gannaawam ñu ne ko waxal lii après ñu fay la xaalis parce que kii dañ ko bëgg a humilier wala dañu bëgg mu torox politiquement dañu bëgg mu disparaître politiquement léegi yow wax comme comme comme jege nga xool am na lu mu ñëwoon def si yow da ko massage yow lay gënd rek nga wax lii après nañu assurer passeport nañu assurer sa sécurité après dinañu jox xaaj bëree di nga tekki boo aji saar loolu la woon rek du dara benn doomu xaraam bu pauvre la am papu bu pauvre famille bu pauvre

avons concerté wu ci benn genre cellule bu solide ñi dem déposer ay plainte yu à l'extérieur comme à l'intérieur du, pays elle sera poursuivie devant les juridictions du monde parce que bu fekkee dañuy utiliser tout le temps jigéen comme arme de guerre pour détruire ay ay ay hommes yu yu yu yu rarissime ay hommes yu rarissime politiquement yu politiquement pardon yu rarissime politiquement ay hommes de valeur de principe ci politique ñoo xam ne dañu war a jëriñ seen askan ah yow jigéen nga accepté ñi utiliser sa image ñi utiliser sa turu taat ah ñi utiliser sa turu lëf ah ngay ngay victimiser wu di jouer théâtre ay nit di dee xopet xopet xopet ngay toog si sa bakken te déranger wu la ñuy toroxal as gor nga defee ne yow benn bés dina jot ngay def say anniversaire di woo ay géwal jël say micro di woy woyum séeréer rek pour wax ni séeréer yi yéen laay faral séeréer bu séeréer du bonee ni yow nii yow séeréer gu rax nga am naa séeréer yi ci seen bopp war nañu dem xool bu baax yow si lan si ak naka nga bokkee ak séeréer est-ce que vraiment sa baay mool a jur war nañu dem vérifier ba xam est-ce que vraiment yow sa pap bu nekk ca dëkk séeréer ya ak jikkoom jooju mu ànd yow ci naka ngir est-ce que vraiment sa baay boobu yow amit Adji je moo la parce que un vrai séeréer un vrai séeréer du accepter lii un vrai séeréer du toog gis ay doomu Sénégal dee ci anam bii xoppet xoppet xoppet xoppet xoppet ñu dee ci anam bu métti bu ñaaw ah yow ngay jël sa micro. dangal ba dang nga ne da ngay anniversaire ak di woy di wut buzz ci dëkk bi looloo tax yow Macky dina dem Marème Faye Sall dina dem ñun ñu jàpp la tégal sandey ci réew mi ah réglé la ba nga réglé cocc voilà loolu moom euh, Adji Sarr da xam lool boo yaakaaree ni jeex na da ngay nax sa bopp xool ma bu baax nga xamee ma parce que bataille boobu man je vais le diriger ce je je vais la diriger cette bataille je vais le diriger ce

waaw incha allah si si baaru aduna ak bu yàlla te ndax yàlla it yàlla suñu borom it mu ngi leen di xaar yéen ñëpp kenn par kenn ah ak yatom yi tegal seen i ndey yéen ñëpp boo leen deewee di yàlla da yàlla mu ngi leen di xaar képp ku fi dee ngir seen i caaxaan yi nii ah képp koo xam ne rey nañ ko ci lii ak ñu ñu leen rey yéen ñëpp yàlla dina leen attee par xisaab kenn par kenn te dina leen duuma ba ngeen xam ni ndekete yéen yàlla sàkku la leen wàccee leen aduna pour lu ngeen nekkee nii waaw incha allah loolu moom am nañ si yaakaar bu baax ngir lu ñu xam kuy suñu borom rabbu samawaati wal ard waaw xam nañ bu baax ni moom ah, dina leen lijjanti aduna ak alaxira waaye ñu nit en tant que doomu aadama duñ leen ko mayee nii de vous allez répondre devant les bars devant les juridictions soi soient euh, Euh, au niveau international, au niveau continental ou national, Adji Sarr ti sera poursuivi Yo Mamour Diallo ak ñep ñoo xam rax nañu ci dossier bi loolu la dajan koy wax ngeen xam ko bo leen yaakaaree c'est fini billah vous vous trompez de génération kon xamoo la ñu ngeen amel affaire dama ne xool leen ma bu baax laa leen wax nii du ay waxu caaxaan laay wax de maa ngi siy liggéey man personnellement chaque jour su ma su ma ñëwee maay def ay recoupement di di togg projet boobu yëpp ak sama ordinateur di bind ministère di toog di xaar ba bés boobu dina jot te bu jotee dinaa wàcc Sénégal cëpp uniquement pour lool et toute la presse va m'entendre parce que du ñu rey booy ah, toroxal boy def li yëpp boy tej boy ay dam ñeneen ni seeni tanki dam seen loxo yi toj boppu ñenn ñi yàq liggéey ñenn ñi ah leen ay at hein pour des des vauriens comme yéen hein ñoo xamne alal aduna ak bakken motax ngeen def lu ni mel ba ay bakken faatu ci vous allez répondre loolu mom dina ngeen ko wax ngeen xam donc ci gatte gàtt gaay lu may wax moy lu ñu accuser Ousmane Sonko kenn du ko accuser as gore viol suivi de menace de mort ci xalé xalé la wax da ko ba pare ñu am avocat bo xam ne yalla yàlla lu may wooyee avocat di diable ah di défendre as dëmm seetaane satan nga koy défendre liggéey satan yow nga koy défendre nga né yow avocat di ci xuus ngir alal aduna di di caricature way dafa ñëw laalat ko mu ñëwaat tel jour laalat ko ay xalé yoo xam dañu bëgg a Ousmane Sonko mu métti leen fas yéene défendre Ousmane Sonko ba joxe seen i bakken yow avocat bi yow ragaloo tiitoo léegi ñun miy wax si réseaux sociaux yi ngeen bëgg a ñun ñu mesurer lu ñuy wax dañuy katt seeni i ndey kenn par kenn ci réew mi ah ba ngeen xam nag ni seen ndey yi gënuñu suñu ndey ci biir réew mi maître El Hadj Diouf waxal dañu katt seen i ndey kenn par kenn ci biir réew mi comme ça di ngeen xam ni yéen seen ndey gënuñu suñu ndey ci biir réew mi bu fekkee yéen chaque jour di ngeen def communication boo xam ne day piquer la colère la haine de ces jeunes là day révolté wuloo ay jeunes yoo xam ne dañu am yaakaar ci Ousmane Sonko ñu gënd si mbedd yi di manifester ba ngeen boom ngeen ngeen bañ a mesurer ses responsabilités ngeen bëgg a ñun mii nekk tugal à distance en tant que digne fils de l'Afrique digne fils du Kama ngeen bëgg a ñun ñu mesurer suñuy propos parce que da ngeen jàpp ñun ñooy wax booy gën déedéet lu ngeen def moo tax booy gën imbécile yu ngeen doon imbécile yi bon yu ngeen doon lu ngeen def moo tax booy gënd yéen rey booy yëpp yan ak policiers yi gendarme yéen rey booy ak seen président bu irresponsable yi di Macky Sall yéen rey booy parce que boo leen defutoon lu ngeen def nii en commençant par Mamour Diallo ah waay ju dëggandeem boobu boo leen defutoon lu ngeen def nii lii yëpp du xew Sénégal ba tey ñu yegg fii fu ñu yegg ay irresponsable yu mag ngeen loolu tax nañu dëgg seen ndey ci réseau yi ba ngeen xam ba paré dinañ ñëw Sénégal ñu lijeenté ko nak bay fekk Macky Sall lem na valisoom dem donc il ne s'agit que de ça il faut que ñi ñi xam loolu len yaakaaré ni jeex na vous vous trompez vraiment de génération billahi kon xamoo le ñun ñoy ñan ñun on a appris beaucoup sur nos ancêtres panafricains yu fi nekkoon ñoom Cheikh Anta Diop ñoom Mamadou Dia ah euh, ñuñ fi rey yëpp on a beaucoup appris si ñoom da ngeen yaakaar ñun nañu bàyyi yéen mi nekk ci mafia googu ba tey ngeen continuer di ñu lem ci lu leen neex billaahi wallaahi taalaa dañ dinañ leen jox suñu bakken ci réew mi ah bu ngeen sentir ni ñii pare nañu pour pour pour exposer sax seen bopp joxe seen bakken pour seen dëkk moom boppam tooñ ay nit xoolal lu ngeen def boo yëpp ba pare ñoo di woote am am amnistie mel ni nit kee lay nit ki def eh, délit wala moo def benn eh, lu doy war injustice bu doy waar nga koy tooñ ah léegi imagine nit tooñ la toroxal la rey la tëj la gaañ la ba pare mu ne léegi da ngay ñëw ma def ma baal la quoi xool est-ce que respect ci tax non à l'amnistie dañ koy tere ñu

mais mais tax de façon imagée di ça gis pensée ah, di par kenn ñom Cheikh Le premier martyr bu ñu rey bi Ils di xol boy yeb ñom Ils ah xalé yo xamné ne xolal boy bu ñu nuñ ko ré ko xamné manifestation ah fait sa ak manifestation nañu waxante deug ils bi wor dem di liggéey ñu ray ko ray gu ay ay voyou yu melni ba pare ñoo taxaw ñu ne ñoom dañuy voter ap loi amnistie quoi dañuy ñëw pour bal boy, bal boy. yo da ngay bal ku la tooñ da ngay bal ku la il faut que sénégalais xam lan moy amnistie amnistie di yëfi tiaxan dañu wax dañ sen président dafa bëre tiaxan un homme aussi irresponsable ni Macky Sall billah wallahi Sénégal mosu ko gis mosu exister ci histoire politique Sénégal en tant que président un président aussi irresponsable ni Macky Sall billah c'est une première fois dans l'histoire politique du pays kenn qui xalaat ni Sénégal dina président irresponsable ni Wadi Guy le député du peuple discours am tey assemblée nationale mooy abandon de bah oui parce que lu ngeen chargé boo c'est des mensonges que de la futilité ay futilité rek ngeen créé ah chargé ko injustice di leen tooñ lu ñu defut di leen jiiñ lu defut ba pare jàpp leen tëj leen pendant des années ñu nekk ci ci ci ci ci ab bërëb boo xam ne lu ñuy lekk du baax lu ñuy naan du baax fu ñuy tëdd du baax ñeneen ñi ñàkk seen liggéey ku mel ni Hannibal jim jógee depuis Canada ñëw di takk soxna juste parce que lan la lu muy def ci réseaux sociaux yi ça ne vous arrange pas communication mu arrangé wu la ngeen jiiñ ko lu bon jàpp ko tëj ko ci kaso gi ah yàq ko yàq liggéeyam koo xam ne extérieur la newoon di liggéey daan dooleem di yónnee pour économie Sénégal ndax xaalis bu muy yónni transaction yépp fu muy jaar taxes yi day day apporter dara économie Sénégal yemu ci Sénégal lañ ne Sénégal la ñuy jënd di fay taxe biiru Sénégal ah un digne fils comme ça

Mpare teye gen ton, genne yene amnesye e nyi kwa, genne nyo i ban. Gen ton nyo, ray nyo, def nyo, lune, tej nyo. Dja nyo dole, satis nyo ala rewimi, di fen fune, di day fune, sal tel dek bi, yep. Tak kal sobe rewimi, yep, toutel kilife, yep. Transforme kilife, yep, def len ayon bote. Amou nyo sa ben, ben ni imaj pou pozitif si bi rewim. Kou don, kou nekon kilife ay jamono, aki yen, neka tout kilife. Imanjine loun, kou nekon kilife ay jamono, Senega, teye aki yen, seen façon def ngeen ba xale yi di manqué respect kilifa yi kilifa yi amatuñu cër ah dem nga tuutal kilifa yi ci réew mi ku yaakaaru ne sëtu diw la ak diw ak diw ak diw dem na ba nekkul sëtu dara ken fonk ken fonkatu leen ah imagine leen loolu lu ngeen yàq ci réew mi dafa bëre pour que sénégalais yoo xam ne ba léegi xamuñu yenn lu ngeen jotee ak nit ñi te boo leen yaakaaree ni jeex da ngeen di nax seen bopp billahi wallahi tallahi wax naa man matin midi soir ci dossier boobu laay liggéey dama ko c'est comme benn projet de mémoire la ci man dossier boobu tey laa ñëw nag fii di ko wax tey laa ñëw fii en plein live di ko wax ñi may ça fait maintenant trois mois sama machine sama ordinateur maa ngi ubbi dossier di ci liggéey di ci enquête di noter yëpp di enquête touru ñu ñu war a poursuivre suba lu ñu tooñ ñii xale yu ñu rey lépp di bind lépp di def ay recoupement fu ne ci presse bi di def ay moutir fu ne lépp du tek pour di waaj après Macky Sall yéen ñëpp dinañu leen téegal seeni ndey ci réew mi ba ngeen régler da ngeen yaakaar ne bàyyiwu Macky Sall moom réew mi wala ndeyu Macky Sall moom réew da ngeen di da ngeen di da ngeen di nax seen bopp Macky Sall bi da leen da leen saraxe yéen ñëpp ba pare wala ngeen saraxe seen bopp puisque bu bu ngeen demee di sàcc doo leen ko tàggoo bu ngeen demee di rey doo leen ko tàggoo moom bu ko du def dara du wax dara au contraire day wax ni euh, force restera à la loi Les hein. léegi ñun ñooy appel à l'insurrection force restera à la loi ñun ñooy voyous ñun mi wax ni lu ñëpp ñëpp ñëpp si ñun bëgg suñu suñu ñun def appel à ay intellectuel yu mag billahi wallahi billahi xaar rek ba kanam ngeen xaar rek quel li li quel que soit président buy na bañ a sa doon waa mais yéen ñu yéen ah xanaa xanaa dee dee mooy tax yow Macky Sall euh, Mamour Diallo euh, Antoine général Moussa Fall sangam nangam wax ah rek tax ñu ak googu marionnette pour taal dëkk bi moom ak baayam bu nekk village ak ñëpp ñu rax si dossier yi yéen ñëpp kenn par kenn di ngeen wuyu billaahi su ma leen ko waxee rek gëm leen waaw loolu suñu combat la ñun cellule bi ñu siy liggéey bu baax ñu siy liggéey ndànk-ndànk di si wu ak ay nit yu discret pour loolu aji saa demal fu la neex bitim réew moom fii bu fi ñëw parce que ñu ngi lay xaar fii boo fi ñëwee mooy yow doo dem doo dem doo dem Auchan doo dem Carrefour doo dem fenn du ña ñuus de mais foo dem di nga def nga lu ñaaw Sénégal billahi wallahi talaay du ña rey de du ña dóor de mais foo dem fii laa la wax nii Sénégalais dina ñëwan ni am nga ay nit yu nga rey que assassin nga yow muy indirectement ou directement parce que sa bakken jaral na la ay nit ñuy dee nga koy fekkee ngay garde ay fen ak ay complot te yow yaa gën a xam ne lu ñu utiliser yëpp du dëgg ay fen la parce que la nga bugg a tekki yow ak sa on verra qui vivra verra proverbe lu mu wax qui vivra verra xanaa xanaa ngeen bañ a fekkee pour ñoo xam ne dañ fii nekk xanaa ngeen bañ a fekkee voilà qui vivra verra su ma la ko waxee rek gëm leen voilà jërëjëf